<laughs> et de femmes euh, ñu gis le prix de l'oignon jar 1200 oignon bu cheraan ba cher 600 francs la daan jar bu ñu tijjee marché bi euh, mu wàcc à 300 francs alors qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe euh, samedi euh, on a déchargé au niveau du port de Dakar euh, un navire euh, contenant 7000 tonnes d'oignons ñu ngi xaar 8000 tonnes euh, cette euh, cette cette cette semaine euh, mais pourquoi euh, ñu mën a saggan ba euh, di am pénurie alors que ñun sax ci wàllu oignon bi on a les capacité de couvrir nos nos, nos besoins où est-ce que ça coince. waaw balaa ñuy tàmbale maa ngi gërëm aussi sa téléspectateur ak sa followers ci àdduna bi yëpp c'est vrai que. <coughs> problème onion posé na <coughs> temps yi mais boo fàttali ko daaw aussi euh, avant Magal Touba amoon problème bu mel noonu. non c'est à Touba où le sac coûtait vingt déjà euh, c'était à Touba. c'est une première. waaw euh, loolu c'est simple c'est-à-dire que Sénégal euh, grâce ak politique yi ñu def au niveau du ministère de l'agriculture depuis l'avènement du PRACAS. Euh, oignon moom li ñuy béy fii maanaam am am na am nañ production boo xam ne maanaam upp na sax suñu consommation problème bi mooy timing production bi cest a dire que euh, presque ñun suñu production yëpp day ñorandoo bu ñoree en même temps loolu moo tax dafay am période da ngay dégg euh, maanaam béykatu oignon yi ñu ngi jàmbat. problème de conservation. oui parce que ñoom ñu ngi ñu ngi maanaam euh, brader seen oignon wala mu ngi yàqu seen loxo donc problème bi ñu am mooy c'est un problème wax nga ko un problème de de stockage de conservation. loolu moo tax euh, je me rappelle euh, dernière tournée bi ma ànd ak président à l'époque j'étais ministre de l'agriculture au Fouta euh, producteurs yi dañ génnoon seen saako oignon yëpp ci yoon bi di naan il faut ñu jaay suñu oignon il faut ñu boobu président euh, je pense que conseil des ministres tam la woon dafa jëloon déjà dogal jël deux milliards euh, pour ministère du commerce ñu mun a construire ay magasins de stockage defe naa programme boobu euh, ci li ma dégg en tout cas ñu ngi koy wéyal te bu bu ñu paree mun na am en tout cas dina saafara lu bari ci problème boobu. bu loolu weesoo aussi y marché d'intérêt national boo xam ne léegi à ma connaissance c'est opérationnel. bu passé aussi man balaa ma fay jógee dañu amoon dañu signé woon ak benn entreprise bu mag ci wàllu matériel agricole maanaam 700 trois 300 yi ñëw nañu ba président réceptionné leen grand théâtre euh, deux mois euh, derrière euh, ci programme boobu yaa des magasins de stockage et des chambres froides une cinquantaine je pense donc loolu yëpp defe naa programme yooyu bu bu ñu ko paree xëy na Euh, problème en tout cas stockage euh, suñu onion suñu pomme de terre euh, dina féete ginnaaw. mais mais xam nga euh, d'abord on nous a vendu une autosuffisance alimentaire depuis 2017 euh, il y a eu de nombreux programmes beaucoup de milliards injectés tey bu ñu defee le le le compte yenn denrées yi bu ñu amul problème mu autosuffisance am nañu problème mu conservation problème stockage. d'ailleurs euh, Ali Bandel bu daan wax l'oignon de la vallée euh, loolu c'était il y a c'était il y a dix ans vous construisez une gare des gros porteurs kenn occupé wu ko ça fait trois ans c'était sous Mohamed Boun Abdallah Dionne vous construisez euh, un marché d'intérêt national boo demee y a pas plus de quinze euh, cantines quinze magasins yu ñu occupé dans ce marché là lépp dafa dafa dafa dafa tëj finalement on se demande pourquoi l'État du Sénégal s'est endetté euh, à hauteur de centaines de milliards avec des partenaires pour construire ces infrastructures là on nous a vendu euh, des, des, des, des une solution pour le stockage euh, des des des denrées euh, des cultures mais kenn occupé wu ko qu'est-ce qui se passe <laughs> en fait je sais que vous n'êtes plus euh, ministre de l'agriculture mais c'est un sujet boo xam ne jaar na ci sa loxo mais mais bien sûr non non non mais li ma la wax mooy xam nga y a deux volets d'abord pour nga am autosuffisance il faut nga produire li doy maanaam Sénégal. mais ci oignon produire ngeen. lu doy li ñuy produire. doy na mën nañu dundal. mën nañu dundal problème de stockage la ñu am. waaw problème boobu. c'est-à-dire aussi euh, xam nga c'est là où le secteur privé dafa war a ñëw jàppale état du Sénégal parce que y a aucun pays où c'est l'état moom mooy def lépp donc les producteurs dañu war a am seen organisation yu forte parce que am nañu ay comment interprofession la ñu am l'interprofession de l'oignon l'interprofession de la tomate et cetera c'est vrai ñu ngi jàpp mais ñoom tamit en tout cas war nañu euh, am seen programme donc euh, avec le privé pour ñu mun ko def mais euh, euh, dans tout ça nous devons nous féliciter déjà que on a dañu régler le problème de la production mais loolu c'est important parce que Sénégal heure bi ni mais man dégg naa béykat oignon yi barke démb je pense c'est Boubacar Sall amoon na temps dañu exporter oignon c'est-à-dire que comme notre marché mënul woon consommer seen production yëpp te amuñu nu ñu koy stocké dañ ko exporter donc ça veut dire au moins que on a réglé un premier problème mooy problème mu production.